ngeen ànd ci ki nga xam ne mooy Abou koy def tey ma dalal ndaanaan xale bi ma dalal ndaanaan la nee muy Bou Siteu dynamique yi mu toll ay victoire yu bari la baraake toog ci ndaanaan li war dañ ko mën a bàyyi xel fi mu ne nii na ci gaañ yi sànni na karawaasam bu wér nga bàyyi nga nuyoo. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur ah di santaat sama ñaari waajur bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla yàggal leen fi waaw yàlla yàggal fi képp billaay di bëggee waa Géejawaay bu baax a baax di bëggee tamit fi ñëw ni muy Massa Ndiarème xam nga si mel ni ñoom Omar Dieye xam nga gars yi mafia bi barke Serigne Touba Mbacke ñoom Xaadim Dieye gars yi El Hadj nekk koo xam ne suma waala billaahi xam nga rek moo loolu ma ne ko tey damay def émission fi Massa Ndiarème mu solal ma waaw li ma sol kaw ba suuf moom la waaw kon El Hadj dama sant bu baax di bëggee gars yëpp bëggee doomu ndey bi ñoom càndum gars yi nekk si koñ bi koñ jaxaay fii xam mm-hmm. ñoom ama ak mafia bi gars yëpp mm-hmm. waaw soo limee da ngay jum quoi ñoom sayer gars yi nga mooy loolu waaw di bëggee gars yëpp nag bëggee waa géejawaay bu baax mm-hmm. waaw di sant alaaji naar bu baax a baax a baax waaw bëggee xaadim jéey Mhm. fan yi la doon takk soxna suma waay la. waaw ah, moo la rak sa moo ko safara la. waaw ah, moo la mooy safara men Mboy Diop. moo ak Omar Dieye mais dafa dafa soof. moom moo loolu baax ko rek. après nga nga ah, di bëggee tamit jogoo tamit. xam nga di leen sant bu baax ñoom Moussa Sow. combat ay saraxul laax lu ñuy téenee soow duñ jënd soow ndeysaan moo la moo tax man la buusire kon am naa am naa jàppale loo mm, xam ne lu may def du ma jënd soow dëgg la Moussa Sow mooy joxe soow yi xam nga affaire yi mooy loolu dëgg la bëggee gaa sama gaa yi xam nga mm-hmm. ñoom bi ñoom Njaga ku si mel ni Boogaa dem ba parcelle la jógee ndeysaan xam nga di ko bëggee bu baax keroog moo jiite woon convent bi waaw waaw waaw di bëggee Njaga bu Ibi Dieng suma doomu yaay xam nga Barbaza waa Seras Moussa Fall xam nga mm-hmm. ku lim da ngay juum dëgg la Mas Ndiaye bëggee gaa yëpp waaw Mas Ndiaye bokk ci yow. waaw fii laa toppee saako jor. waaw moo tax man mooy loolu aw ma fenn fu dul fii. dëgg la waaw fii laa defee lépp. fii mhm. laa amee fit fii laa doonee jàmbaar. Mhm. waaw di bëggee safara bu baax a baax a baax. comme waaye maa moom ñoo doon contact. dëgg la lépp ñoo ko contact maa ngi safara. dëgg la keroog gis nga xamante ne mooy ci côté combat sa diggante ki nga xam Malick Ndiaye combat bu bëri woon nag coow li bëri trop boobu nga ñëw keroog stade mobilisé ah gis nañ saa boo ñëwee toujours stade mobilisé bi ngay mobilisé stade. mobilisé si kaw ak bi nga xamante ne mooy mobilisation bi nga xam ne bi nga koy def ñu toll. parce que naa la bokk nga ci ñoo xamante ne tey lamb fi mu ne nii war nañ leen mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax a a ñu gën leen tamit mën a jàppale tamit ci ci lamb ñoom mooy si diggante toujours sa combat ak Malick Ndiaye keroog ci biir géew gi ngeen bëree jàppande combat bu metti gis nañ ci côté li nga xamante ne Malick Ndiaye ci côté dóor yi nga xamante ne indi na ko nga dégg ko daal koy daan ci combat bi te lu may ci combat boobu indi ma ci combat si diggante Malick Ndiaye. waaw sama diggante maa Malick muy maanaam moom dafa am loo daf ko teg dafa ñëwee foggu. waaw mais Malick Ndiaye benn saa mën na indi parce que ñu ñu naan dina bëre du bëre. <laughs> loolu yëpp ay la waaw man basé wu ma si loolu man li ma basé muy samay supporter li li li nga xam te ne ñoom loolu la ñuy xaar ci man. Mhm. muy bëre ak doole. Mhm. xam nga mhm. lépp dama ko programme indi ko stade. dëgg la waaw maanaam moom day bëre bërewul yooyu. waaw man bàyyiwuma loolu xel. Mm-hmm. man xamal laa bàyyi xel dama jàpp ne Malick Ndiaye tey bis bii ni day bëre. Mm-hmm. waaw te def naa li ma waroon def yëpp ñëw. Mm-hmm. waa yàlla def na ko nag yàlla dimbali na ma nag mu ñëw bëre si. kon loolu sant la. dëgg la ko gisee stade damaa ah, ndax imagine toi ngay waaj combat boo xam ñaari at. waaw ñu ñëw ba jour sa sa adversaire ne du day bëre du bëre xam nga loolu noonu mooy loolu. waaw dafa métti. mais ba mu ñëwee nag dama kontaan trop. dëgg la barke Seydina xam dëgg la ba nga jàppanteeg Malick Ndiaye am nga loo yëg ci moom xam na ne liggéey na noo liggéey na moom liggéey na trop gis ko nag mu noonu rek mais daa dëgër këng waaw barke Serigne Touba ndax bañ dalantee laa ko xam dëgg la waaw bañ dalantee moo loolu mais maa ngi moom bañ dalantee munul li munul liggéey loolu loo xam te ni moo la sama waay moom liggéey ma ko <laughs> dëgg la ndax parce que bañ dalantee ko foofu na ko ëpp doole rek xam nga soo mm-hmm. waaw noonu la demee dëgg la ci biir bërëb bi mu ngi lay jéem a jumloo di def changement de pied pour nga jug ñu gis nga def tek daw dox ci kawam kan moo conseillé loolu Bou Siteu waaw ki ma conseillé loolu rek muy safara maanaam hmm. safara moom moo loolu. waaw moom maa moom ñoo kontaakandoo combat bi lépp te safara boo xoolee safara. Hmm. ak Malick Ndiaye xam nga doo leen tëkkale. Hmm. moo loolu te safara moo ëpp doole Malick Ndiaye fu dax koo bëree. dëgg la te damay kontaakoo moom kontaak yu métti. kon su ma dalanteeg Malick day mel ni benn effort laa dalanteel rek. parce mm-hmm. que Seydina Mohamed bëre bi. Mm-hmm. si lépp. dëgg la waaw maanaam munul indi lu ma gën a jaaxal lu lu loo xam ne lu nekk si bopp safara. Mm-hmm. nekk na si bopp Malick Ndiaye amul daa doole beeg lépp. waaw barke Serigne Touba Mbacke. keroog yéen ñi nga xamante ne tey kat mbër gi jaay di bëri ci bis bi keroog yéen boobu diisoo na trop ci yéen. waaw yéen bi moom diisoo na trop te parce que quatre ñoo fi doon bëre. waaw suñu école trois lañ. waaw waaw ku si mel ni bébé gi. di ko féliciter ak kii Eumeu Sène Junior. waa ak Marley moo nekk écurie Papa Kane mais lépp géejawaay la. dëgg la waaw. dëgg la pression bi muy maanaam ñun gëm bi nekkoon si ñun. Mhm. bi nekkoon ci man moo nekk ci ñoom. Mhm. te parce que ñun dañoo taxaw ne ñun dam rek. Mhm. waaw te parce que moo loolu. liggéey bokkul bëre yi bokkul. waaw ñun waa géejawaay dañoo xarañ de ñun dañoo mën a bëre am fit. moo na gis nga kan ndam lañ génnee jour boobu te loolu yombul. dëgg la gis nañ ku guy ba daanu dafa mel ne dinañ la parce que ma libéré. waaw daanee noonu gisoo daa daan daw ñëw yi jaar sama yàlla yi. Mhm. kott ma ñu mooy loolu. dëgg la xam rek bi. Mhm. waaw mooy loolu. dëgg la combat booy ak Malick Ndiaye bi ba ngeen jàppante jëng ci kuy métti. waaw jëng ci dóor yoo xamante ne métti na trop tey boo xoolee ku yooyu noonu ci biir bi ci daw fiir ki nga xam ne Malick Ndiaye daan ko. waaw waaw si biir dóor bi tabax tegal na ma neuf coups. waaw seetaan naa émission am sax muy jéem a salté sam victoire. <laughs> xam moo la naan naan dama ko tegale six coups. Euh. moom ba tey sax xamul coups yu ma dóor démb chaque jour ma seetaan combat bi. Mhm. neuf coups la ma dóor si faar. Mhm. sama benn faar côté bi sax laa dama xoo ma. Mhm. loolu. dëgg rek mais yooyu dul dara. waaw ñun dañ koy meññee dafa sax ñoo opté Mm-hmm. ñoo opté di bëre di indil waa Géejawaay ndam. Mm-hmm. te parce lool man mooy mooy priorité bi. parce que man looloo ma ñor dem bëre indil waa Géejawaay ndam. Mm-hmm. yow lay leneen ndam li ndamu ndamu Sénégal la sax laa wax international. dëgg la te parce yow boo gisee TikTok bi boo duggee fu ne la nit di jël di dugal samay vidéo. waaw waaw fu da na kon nekkatul sax. bu si de géejawaay kese kese. waaw adduna la international la dëgg la dëgg la ñëpp ma bëgg. Mhm. xam nga rek heure bu ma jugee a yokk. Mhm. parce que yow boo xoolee démb li ma génnee. waaw waaw ndeysaan bëri na trop. dëgg la waaw sa combat rek mbooloo maanaam li muy gën a yokk. Mhm. maanaam loolu la maanaam. war na tax ma gën a am beneen tànk bu ma teg. ci mm. côté entraînement. yokk maas bu baax a baax. mais ci côté jàmm gën est waa jàmm gën lamb dina bëri ñoom parce que gis nañu mbëru jàmm gën dañ la bëgg lool ba am nga supporter yi bëri yam yu jugee gën. am ñu supporter wallaahi dem gën lañ. waaw parce que Serigne Touba waa ñëw ah mais jàmm gën am nga fay adversaire yoo fa a laale. waaw am naa ay adversaire yu ma fa war a laale mais loolu. est-ce que gu ma ci sori. dëgg la waaw mënoo gu ma ci sori te parce que waaw mais jàmm gën moom dama leen di sant bu baax a baax a baax di bëggee waa Jaksaaw bu baax. Mhm. di bëggee waa Wakinaan waa guy ga gars yi mafia lañ def. Mhm. bilaay dama soog ruus barke Serigne Touba Mbacke xam nga rek. maanaam man nu may amee combat du ma dugg du ma dem fenn yëgle ko xam nga rek. waaw te que ñoom nii ak ni ñuy waajee sama combat. ndeysaan barke Serigne Touba Mbacke. dëgg la bilaay kon damay sant waa jàmm gën bu baax gis nga supporter Rona yi. waaw Rona daa bëre ba pare ñëpp toog na duñ dem. dëgg la xam nga rek ma ñëw ñoom ñëpp ñu yuuxu tàccu ma. waaw xam nga affaire boobu nekk loo xam lu ma marqué la. barke Serigne Touba Mbacke moo mhm. tax rek. waaw ndeysaan nit sax yenn si nit taf tey tey yàlla bëgg. ndeysaan parce que Serigne Touba Mbacke loolu nag xam rek nekk na geste bu naam ñoom Abdou Seck. waaw waaw après Laurent supporter xam mhm. moo lay wan rek kon man waratuma juum si benn côté communication bi. dëgg la waaw waratuma juum. waaw te parce que ñoom sas dañ maa sas. dëgg la waaw maanaam booy ba mu daanee rek loolu ak sas la. Mhm. mu ñëw supporter bi ñëpp jóg. Mhm. na ma ndam rek ñu ngi fii toog. dëgg la te yaa ngi fi te Laurent toog si plateau bi ñaanal la ndam. waa Laurent démb laay seetaanaat combat bi mu <laughs> toog si plateau bi ñaanal ma. waaw ñaanal la waaw maanaam lamb sow bis la. waay yi nga doon dégg si ginnaaw yëpp Laurent toog di may laaj ak yooyu yëpp. xam nga noonu la. waaw parce que man noonu laa fi doon toogee di laaj ay Ondou le waaw di laaj ay Ndongolo. waaw xam kon tey Rona bu demee bay toog di ma laaj dafa war. dëgg xam nga mais du ma instant moom mu ngi soog a mu ngi si yoon bi. waaw waaw te daan daan na daan. waaw mais mu ngi si yoon bi quoi. waaw mais bu Siteu boo xoolee man sama neuvième combat. dëgg la waaw mooy loolu. dana toog si ay dynamique baax mooy sama victoire. waaw mais instant am nga ah. sa bët. fi mu ne waaw waaw am na foo teg sama bët fu jëm foo jëm waa am na ñu may woo ne ma sama diggante ma buuse waaw kii buuse moomu woo ne sama diggante ma kii wulli waaw waaw ak maa kii karabaxa waaw waaw Tafa Gueye Tafa Gueye Tafa Gueye dem tamit woo nañ ma waaw waaw Gaston rek bëgg na combat boobu Gaston bëgg na ko waaw bëgg na combat maag karabaxa looy bañ yaa bañ wala si ñoom la desee fi mu ne nii non si moom la des man combat wala laa gën a xiif sax waaw combat boobu laa gën a yàqal. magum lamb la Tafa la. numéro 2. waaw parce ku daan Malick Ndiaye Tafa Gueye de waruma bañ bu ma bañee rek damaa ragal. dëgg la bu ma bañee rek damaa ragal wala waa Fass ragal ma te parce que waa Fass xam nañu poids bi waga la. <laughs> waaw ah, man damay man déggu lu ma laax man déggoo déggoo ma de. Mm-hmm. man dama dama lay bàyyi ba nga def li ngay def yëpp ma la sam waay boo ñëwee ma jox sa defar nga leen ñibbiwaat. Mm-hmm. man léegi damaa yeewu ci lamb. ngemb li nga ngemb keroog du ngemb xale de. déggoo ngemb million la surtout man bokkuma ak mbëri di ngemboo ay trois cent mille de. Mm-hmm. barke Serigne Touba Mbacke man du ma mbër yooy man sama waaw boo xoolee li ma indi stade nga xam ne booy bi ndax ta parce que boo xoolee combat la vingt cinq juillet la woon. waaw ñu yàqoon suñu lamb. mu yàqoon état yàqoon lamb yi. Mm-hmm. xam nga mooy loolu te teewul. dañoo ñëwaat bañ jàppaatee dat dañoo ñëwaat utaat uti utiwaat yokku cer doolu ñeex dëgg la kon lay leen kon du ngemb xale waaw moo tax gisoo mandiaay gis nga nu ma mooy loolu moo tax ma daan ko pare koŋ ko koŋ bu saf waaw loolu demee na voilà koŋ bi lan waral koŋ yi ah, soo gisee ma ko ma daan ko pare koŋ ko gars yi ma bu ko génn di gis nga doon na génn di wax si man lu ñaaw waaw xam nga rek na sax ba naan gars yi maa jox xaalis dem maa koy seetaan muy tooñ Pape waaw waaw neenal gars yi nga di wax ku mu ko sipi Pape Sarr maa ngi yow la yaa xale bi la woon. waaw duma naa la dumay métti daan naa la koŋ naa la sa bopp wow. pareegu ma si yow baax ma tëj la nga xool. <laughs> non fi mu ne yaa mel ne Ndiaye na comme laabu yi jeex na fi mu yaa ngi teg sa euh, euh, am solo. waaw waaw journée Gaston yooyu noonu bu bu bu bu ñu si duggee combat bu neex ngeen di am. waaw bu ma si duggee combat te parce que instant yii nii man dama yàqam di bu mag. Mm-hmm. te parce que moo la man sama journée yi may bëre xeebu ma ko trop mais. dëgg la war naa dugg ci combat boo xam ne journée bu mag a mag la. Mhm. waaw te loolu bëgg naa ko. te parce que dëgg la fële naa. mais dama war a gën a fële gën a wane sama bopp. Mhm. waaw man moo la man du ma du ma ragal dëgg la. waaw dama war a si journée yu mag a mag. Mhm. waaw te parce bu ma jugee géej waay bi ñëppay jóg. waa ASEC naa. loolu a wax xam nga di bëggee waa sans fil bu baax sa mafia bi. Mhm. gis naa mobilisation bi xam nga. Mhm. bu baax waa sans fil ASEC naa. ndeysaan waaw di bu baax gis naa mobilisation bi. Cité Gaddaay dama faa loose rek. waaw mais jour yu may bëri ndeysaan xam nga fii laa ngemboo sama waa sama gaale fii. waaw mais foofu rek dañoo yaakaar ñu bëri fa laay ngemboo ndeysaan ak gars yi génn takk drapeau yi takk mbii bi foofu koñ bi ma dëkk. ndeysaan parce que seen bi ku si mel ne ñoom Fallou Armiñon. waay waay xam nga ku si mel ne ñoom Mamadou Sakho sama gendarme bi. dëgg la waa NG Mbao. Mhm. foofu lañ dëkkee noonu. dëgg si dëkk gàddaay te ngemboo ma foofu dama faa am néeg rek. Mhm. maa ngi woon fii mais dégg naa coow lu yóbbu yëpp foofu. ndeysaan maire yi di ma ñaanal ak paa yeeg ñëpp. dëgg la xam nga takk foofu samay drapeau. xam nga tan ndeysaan loolu sax yëguma ko. waaw wala damaa toog sama gaal la gars yi woo ma dama yow gaan gars yi ngi nii cité gàddaay. di la xaar xanaa fii ngay ngémboo man la noono man maa ngi su may sama gaal la. dëgg la xam nga rek di sant waa cité gàddaay bu baax waa Ndiobène. Mhm. di bëggee Baye Fall dawal ko di seere nekk foofu yëpp. boo xoolee sa combat bi nee naa la bu lan defal mbëru géejewaay yi parce que stade boo dugg buusi dañu stade keroog. waaw ah, gis nga stade bi léegi nii sax ñëpp. mbaru géej kontaan. am na mbaru jàmm yoo xam gis naa ñu ñu dugal sax stade yi. gis naa mu dugal combat bi stade waaw maama maanaam gars yi dañoo kontaan loolu lay wax ne waa man jàmm gan. dëgg la waaw gis naa waa jàmm gan maanaam stade yi sax mënu gis mënu mooy loolu. dëgg la c'est ça ñoo xam ne sax mooy loolu ñi may dugal te man gisuma seen stade yi. dëgg la parce que Seydina Mohamed. combat bi ñu si jàpp na war nga leen woo waa ñu si jàpp moom naa doon woo ku si mel ne Daouda Mbow ak gaa yëpp. waaw waaw Daouda Mbow mooy sama pro bi dama def ko profil noonu. ndeysaan dëgg la ndeysaan dafa ma gis rek bëggal ma boppam. ndeysaan parce que nekk nit ku baax nekk taalibe seex. dëgg la wallaahi di mm. dox si social. di dox si social te bëggul sax nit xam ko. dëgg la parce que Serigne Touba Mbacke Daouda mm. Mbow. Mm. bu baax. waaw di nuyu Rakam Zara mooy jabaru Cheikh Kouyaté bi Rakam la. waaw Zara maa ngi koy sant bu baax yónnee na ma xaas bu bëri si combat bi. Mhm. xam nga ak gars yi nekk si diaspora bi ñëpp ku si mel ni mhm. Almadi mafia bi. dëgg la xam nga mooy loolu. waaw combat ma entraîné entraînement yu métti <laughs> maanaam entraînement zóor. waaw mooy pro yi. waaw entraînement gaan barki yàlla moo la Malick Ndiaye mënu ma woon téye. ndeysaan tabax Moussa Kalamu ma teg loo xam ne ak maam Cheikh. Oh. barki sëriñ maam Cheikh mooy saalu parcelle maam Cheikh maa ngi koy sant bu baax gars yi ma teg lu métti. moo tax bëre bi war moom mën a téye barke Serigne Touba Mbacke dëgg la waaw di bëggee gaa yëpp nag gaa yi jàpp si combat bi di la sant tamit yow waa yow Sefa yow suma waay nga <laughs> sama waay nga yow ba nga jàppee ba léegi yow ak may seet boobu benn tere ñëwee ma sama waay nga sama waay nga kon mu nekk lu yàgg dëgg la xam nga ñu doon def mala sama waay mm-hmm. émission wo nu mu tuddee émission ndekki mbër waaw andi waaw gis nga fi ma <laughs> sa mbër kii mu ndekki <laughs> matin mbër matin mbër matinal mbër xam nga loolu noonu na te boobu kenn déggoo gu ma woon ndeysaan dëgg sama waay nga nekk nit ku baax bëggee tamit alaaji naar waaw alaaji naar combat bi daa daa ñëw ba stade gi samay supporter xam nga mm-hmm. maanaam liñ boole gi maanaam doyul waaw man am na say si ba tey ma am na ñëw ba foofu jëndaat yeneen ticket waaw jëndaat yeneen ticket ku si mel ne bébé bu Malika waaw bébé bu Malika ko boo yëpp ndeysaan xam nga alaaji naar tamit ñëw feccali affaire yi waaw xam nga ku si mel ni Vito tamit noonu la noonu la mm-hmm. demee ñëw ba stade jëndaat ay ticket joxaat ko gars yi kon xam nga loolu yombul waaw tey ji fu ma demee ba am ay jàppale yoo xam te ne boolewuñu ak dara ki wax. Mhm. ñoom dañuy def li ñuy def ñëw ba stade dugal samay mbooloo. kon xamun tey loolu yom te parce que boo xoolee li ma mobiliser. Mhm. li ma mobiliser maanaam chaque combat mobilisation bi. day gën yokk rek waaw kon ñooñu aw ma seen fay. waay parce que Serigne Touba Mbacke di bu baax. Mhm. waaw di bëggee gaa yëpp. waaw ku si mel ni Modou Faye tamit. entrepreneur la Modou fay waaw combat bi jàpp na si bu baax a baax a baax a baax. waaw jàppal na bu baax si xaalisu boppam. Mhm. xam nga ku si mel ne tamit kii Mor Ware. Mhm. ki si remplacé di Sey maa ngi koy sant bu baax. di ñaanal Béy di Sey yàlla xaare ko si àjjana fi taw si. waaw mooy maire Ndiarème Limamou Laye Béy di Sey mënu ma ko fàtte di ko ñaanal. ndeysaan te parce que samay combat ma doon may xaalis bu bëri. ndeysaan kon tey bu fi jugee rek dañ koy bu baax. dëgg la di Sey maa ngi koy ñaan di bëgg tam waa Mataga sama gaay wa waa Mataga. Mhm. ak waa Massa Ndiarème fii. xam nga ñoom Jibi Samba ak ñoom Kan Jaxaay mafia bi yi. wër na yàlla booy dañ siy jàpp bu baax ñoom ndongo. ah di bëggee ndongo bu baax sama combat bi rek da see am natt bu métti. dafa gaañu su loxo. Oh, oh, oh. waaw di ko masow bu baax a baax a baax. dëgg la parce que yaa tax xam nga rek gars yi buusite moo leen jaral loolu. Mm-hmm. wallaahi am na ñoo xam ne dañu may jàppale séddu wuñ sax si man may toog di leen tudd. dëgg la parce que seen teewaat parce maa ngi ñoom démb la. Mm-hmm. waaw ñoom maanaam nekkul si ay may toog di leen tudd. Mm-hmm. si ay réseaux sociaux wala noonu. dëgg la dañ maa jàpp yàlla tax. dëgg te parce que ñoom ki ñu jàppanteel xam ko bu baax. man du ma wor. Mm-hmm. waaw te parce que yàgg nañoo jàppante fi ay mbër. ndeysaan waaw ñun avant man avant may nekk mbër dañ daan topp si ay ginnaaw mbër tey ñoo ñëpp dañ ñoo wor. bu ñu rombee fii seen oto sax fif la ñu romb me ni ku ñuy ñaawal di daraabee. <laughs> xam nga di romb fii mala sama du ñun lijjeen du ñu faale. Mm-hmm. te lépp luñ doon ñun la. Mm-hmm. masa njaaram fii kon maanaam war nañ gëstuwaat ñu tourné fàttaliku démb. waa ndax parce boo fàttee démb rek ndeysaan bisu. ah mu bu ne génn fii de. tey ñëwee rek da ngay réer. <laughs> non mas daanaka bu ne génn fii maanaam duñ topp. maanaam si ginnaaw nit di daw si ginnaaw peloton. Hmm. ndax parce que lépp fii la. Hmm. am na si mbër yoo xam te ñu ngi fii nii tey lépp luñ am fii la. Hmm. waaw barke seen tey jii ma la dañuy romb fiisa sax di drapeau oto di xànju. te parce ñun yooy dawul suñu yaram. mënoo ñu mënuñu jaay lu ñu saf. waa ma damay wara rek maanaam nañ wàcce seen bopp daf fàttaliku démb. incha barki Seydina naa mm, yaa ngi wax man bokk ma si ñoom man du ma defee du ma wor kat. yaa ngi solo lu am solo. naa Seydina Mohamed man du mm. ma wor. Mm-hmm. waaw man ku man nar a dendalee baatu wor sax ma la sama ngay xaar. Mm-hmm. maa ngi waaw mooy loolu mais kenn kiiwul. man mm-hmm. Bou Siteu képp ku bokk sa samay affaire rek ma la waay man bu ma la xamee jeex na. dëgg la mais xaw ma jékki-jékki xaw a am tournée gis xam nga man succès waaw man succès sama yaram day xaar. dëgg la parce que alxuraan ko dama wax wax woo xam te ne xam nga. waaw dafa nekk man. dëgg la parce que damay dund fii loo xam te nii ñi may seetaan xamuñu ko. waaw waaw may dund lu métti. Mhm. ma ay nit ñoo xam na ma doon ànd ak ñoom tey gis nga. Ah, waaw tey tey saan ñu dem ba. xam nga demb démb. ndeysaan waaw te noonu war ñu fàtte demb waaw lépp fii la woon Cité Barak fii la xewee woon. waaw dëgg la ak waaw ñu fi yor seen néegu pantere mhm. ñu ko doon jaante lu ñu am di leen ko jox ndeysaan xam nga lu ñu xewle ñëw ñu abuñ suñuy calal ñu yaakaar génne di leen ko aal kon tey ñooñ bu ñu demee ba fàtte démb xam nga di yor ay oto ñu leen rom ñuy darabe di ñu faale xam nga di gaaruwaale kon yooyu ñun dawul suñu yaram mhm. barke tu Touba Mbacke di ñaan jàmm mhm. waaw di ñaanal Sakho Dior bu baax waaw ñu ngi dégg ay wax nag mais Sakho Dior yow loolu du sa wax waaw te parce que ñun dañuy dégloo waaw ñun kenn mu ñu jaxas ak saako yo saako yo sunu mag la. Mhm. waaw mais xam nga am na yenn yoo xam sax jarul wax. dëgg la mais saako yo am na leen loo xam loolu du waxam mais ñu ngi dégg ay wax yu ñaaw. Mhm. waaw mais nañ bàyyi wax ji. dëgg la ah jubóog saako yor rek waroon tax ngay génn di ratatati di wax. Mhm. xam nga bëgg ñu jaxase ak saako yor. ndeysaan saako yor xam nañ ko bu baax kooku gaynde la jàmbaar la. parce que alxuraanu karim. ndeysaan waaw maanaam am na am ñu dégg ay wax mais loolu du waxu saako yor. dëgg ñun wax yooyu duñ ko bàyyi sax xel. Mhm. ak Serigne Touba Mbacke Sakho Yor moo ñu moo def ci ñun bëre. Mhm. waaw maanaam kenn du wax lépp. waay waaw mais yàlla na jàmm yàgg. amiin ko waaw. amiin leen ñaanal maanaam lépp lu ñu am rek yàlla na. waaw yàlla na gën a saan. waaw sa diggante ak buuse buuse sa waay la gis nañ ne muy. jàppee dama koy bu baax. ci combat bi open press bi. waaw xaalis bëri la yëkkati jox ma ne ma dafa xam ne open press. ndeysaan jëndal ma bolo bu ticket. waaw fay regroupement beeg yëpp. waaw xam nga samay nitu démb ba tey samay nitu démb lañ. waaw mais yenn saa yi gis nga nit day day gis nit bëggal ko boppam loolu man Bou Siteu mënu ma ci dara. Mhm. waaw man képp ku ma jàppal damay taxaw gërëm la. xam nga man képp ku may dooleel damay taxaw gërëm la for force. dëgg la ñun loolu lañ fi am ku ñu jàppale ñun amuñu dara. Mhm. barke Serigne Touba Mbacké. dëgg la di bëggee waa Massa Ndiarème bu baax di sant buuse bu baax a baax a baax Ketchup. dëgg la mu combat bi fu mu demee ba tey mu dem bay woo ay Matar. Matar suba teel. waaw Matar suba teel naa ko jàppale ma sama rakk Matar suba may ma xaalis. waaw ku si mel ni Ndoura Balde. waaw man fu ma dee xam ay Ndoura Balde kon tey loolu. waaw kon bëgg na tey ma am ñenn ak ñee connaissance. dëgg bëgg bëgg waaw mel ne ay Pape Diouf. Mm-hmm. barke ay bébé baas tey su demee bu buusa tey ma dem bay jokkalante ak ñooñu ndeysaan ay Daouda Mbow international mooy ancien joueur Marseille bi yaay dëkk ba Almadi nekk nit ku baax di nuyu Cheikhou Kouyaté bu baax xaalis bëri la mooy si combat bi di nuyu jabaram Zara waaw ah, Naar maanaam kooku su ma neexee sax toog waaw alaaj naar ñaar yaa ngeen bërëg si ko tuddee <laughs> kon su ma demee ba ay nit di dem di nga di ma jéem a jaxase moom di wax lu ñaaw waaw naan ko booy bi da laa bàyyi léegi ñeneen lay gërëm yooyu amul amul dëgg la man képp ku may jàppal dama lay gërëm loolu du mos a deñ ndeysaan waa kon nañ ma bàyyi ak naar sa waay la waaw di ko ñaanal jàmm yal na ko yàlla defal dëgg la alaaj naar yaa ngeen yaa ngeen ay interview bare bare bare sottee da ngay tudd alaaji naar dëgg la ma la biir géejawaay bi nii billaay kooku moo fiy def social yoo xam gisoo koor gi rek vingt millions yi ma yore mooy esa yaa nga doon gis. waaw moo ma joxoon vingt millions ñu doon def social si koor gi. kon tey ku dem vingt millions. sa di def social bu toll noonu. kon kooku nit ku baax la. dëgg la waaw alaaji naa moom laa tuddee sama doom ji yàlla na yàlla na ko yàlla defal jàmm. waaw ñi ñiy génn nag di wax di daw si moom peloton pour bëgg mu jàppale leneen te <laughs> bu ma waxal lu ñaaw dëgg la xam nga naan ko booy bi ñeneen lay tudd nañ bàyyi loolu waaw ku la kooku mhm. maa ngi kooku bu ma bàyyi woon sax man du ma ko bàyyi su ma taxaw dama koy gërëm. sa waay muy ah. def nit ku baax a baax la. dëgg la du nuyu jabaram bu baax nday Binta. jabaram déggalu ma la lu rafet lak lay wax sama diggante ma ak moom. parce que seen jàppal kii xam nga bul déglu ñun ñi. dëgg la waaw kon alaaji na dama koy def dama koy ñaanal jàmm di wax ne yàlla ko yàlla defal jàmm. jënd na gars may la visa nga nga voyage yi. waaw instant yi gis nga. waaw man su may bëre samay supporter gars dañuy dañuy dañuy sax am dañuy tiit. dëgg la parce bi ma yor. waaw war nañu la jot waaw te ñaan naa yàlla nag gars yi jàppale ma dugg États-Unis waaw yokku doole yokku doole parce que yenn saa sax di koy wax sax am ñu may woo naan ma baal di wax loolu mm. mais dama koy wax bëgg naa yokku doole bëgg naa ku ma jàppale ma xam nga am benn maas bi nii waaw di sant Aziz Ndiaye bu baax mm-hmm. sóora keroog damaa daan yëg si kaw tur mooy ma xaalis bu bëri ak bado xam nga ak Paul Paul maa ngi koy bëggee bu baax ak ñoom Ahmed Fifty gars yi nekk si diaspora bi ñoom mm-hmm. Alaaji xam nga man du ma fàtte man ku ma tuddul rek damay damay xaw a fàtte waaw xam nga mooy lool mais affaire yi du du maanaam nekkul loo xam ne luy yem si benn émission la. Mm, waaw dëgg la tey jii ñaan naa yàlla ba ay TFM di ma invité. incha allah day am ay ay 2S moom mooy loolu. waaw Modou Mbaye mu ngi fi war a ñëw ñu def. sa waay la sa waay la <laughs> Modou Mbaye. na ma dama waajal. dëgg la kon tey fu ma demee ba ay télé di ma invité kon man. waaw maanaam waratuma juum. waaw dëgg la waaw man waratuma juum nañ bàyyi nag bu si da wax benn wax rek. nga gis ñenn yi di génn di di wax. mbiru askan la mbiru askan la wax rek. mbiru askan dafa nekk ci man. Mhm. waaw ah, man lépp lu nekk sama xol dama koy génnee wax ko. la waaw di wax nag école de lutte Mor Fadam maanaam nag mhm. gars yi gën a jàppante waat. ak bàyyi. Mhm. maanaam ñi yemale mbër yëpp. te bàyyi di di xool koo xam te moo la xam nga. waaw kii na oto ki yorul oto nga ni tey ku yor oto ki laay si moom laay daw peloton. <laughs> nañ bàyyi la nañ yemale. man ooma oto ooma dara. xam nga kon nañ bàyyi nañ. mais day ñëw sax day ñëw. waaw gis koo xam ne. waaw xam nga day ñëw incha allah rabbi. kon li giri moo fa naa ngi ñaanal mbër yëpp ku fa am combat yàlla defal la ndam. di bëggee safara bu baax safara bu ma fayam. ndeysaan combat bi da jàpp na ma combat bi sama combat parce que Serigne Touba contact beeg lépp na ma combat bi da ngaa a daan ndax coow lu na trop. waaw coow bëri na coow trop am na jéegoon naa sax ay mbër yu doon génn di ñaanal Malick Ndiaye Taras. waaw ak bi nga dëkk biir géejawaay <laughs> xam nga ngay yeewoo Mm. ñaanal koo xam te ne Pikine lay yeewoo. tey jii yàlla àtte na. waaw tey jii ñoom ñëpp rus nañ te rusoo goo leen sax araba kanam rek dañ ma jox wulli ngeen xool. waaw wulli dama ko war a dama ko bëgg a jël teg ko lu méttee wulli Tafa Gueye ma ne ko wulli Tafa Gueye. waa ak Tarabaxa. Tarabaxa. parce que di sant waa Gunaas bu baax tamit. Mm. waa Gunaas aw ma fay. wallaahi euh, yaa Alaaji Mbaye boobu boobu di nga bëgg Alaaji Mbaye. Hmm? Alaaji Mbaye bu Ama Baldé. Alaaji Mbaye tamit keroog stade la nekk di di waat ne ne moom mënu ma daal maa njaam ma génne 300000 sa kanam. waaw génne 300000 ñëw ba si moom na ko tegal tegul. <laughs> kon ñoom wóolu wuñ seen mbër. moom xaj na si. waaw Alaaji Mbaye xaj na si. yàlla mais moom wayaan bi muy wayaan ak bi muy demee si ay soirée. waaw xiir gi war na ko sàmbay mbayaan man moo tax man bëgguma jël kuy sàmbay mbayaan. <laughs> dama bëgg a jël jàmbaar Baay Faal. waaw koo xam la. <laughs> mais koo xam da ngay sàmbay mbayaan moom da ngay xaar man bërëmaa kuy sàmbay mbayaan. dëgg la ah, jërëjëf Bou Siteu ñu di leen dalal bi nga xam ne tey waxtaan yi neex na lool si nga ñu waxtaan bu am solo si li sa combat sa diggante ak Malick Ndiaye gis nañ keroog bëre bi nga bëre bëre ndaanaan ñaar leen ndaanaan nga ci wetu wàllum bëri nag waaw war nañ def ne rek bàyyi xel sànni nga sa karawaas nag bu baax a baax sax parce que ku def neuf combat teg ay victoire toog ci da nga teg la a bàyyi xel ku ci mel Omar Bass tamit kooku tamit mënu ma wax si émission du fàtte ko dëgg la ak Bayde ba maire Gunaas ndeysaan xam nga mm-hmm. ku ci mel tamit Omar Sané mm-hmm. combat bii nii rek cent mille la ma may ndeysaan Omar Sané maa ngi koy sant bu baax dëgg la la maire xam nga mm-hmm. man maanaam képp ku may jàppal dama lay tudd man maanaam faruma fenn Mm-hmm. waa dabaxtaa raxam ak ki xam nga Assane Karbala ñoom ñoo ma yóbbu ba si nenatal nenatal may ma xaalis bu bëri xam nga kon nenatal dama koy sant bu baax su mel Alioune Sall junior tamit mm-hmm. may na ma xaalis bu si combat bi maam ñoom dañuy def social te ndeysaan seen xaalis maa ngi koy sant bu baax dëgg la may na ma xaalis bu bëri si combat bi dëgg la waaw man nag su rek te gars yi gars yi war a ñëwaat sax parce que ay pap tout fen yam ko comme dañ see jëlee blessure waaw gis nga war nañ mën a ñëw jàppale la carrément jëlee blessure ndax boo xool waaw Ndiaye dafa sonn bo waaw <laughs> mu dóor dóor yu métti <laughs> benn faar bi moo dam xoolal ma loolu te instant yi war naa dem Europe gars yi fu ma dem ñu ne ma mënuñu ko faj waaw <laughs> ah ku si mel ni moo génn na ma defal invitation mu ñëw faju waaw ah ndax Malick Ndiaye boo na xoola dóor soxor yi moo doon waaw moo loolu dëgg la mais lii du dara laa ko laaj la man boo ma doon dóor fii ba suba man da ngay di wàcc. waaw da ngay daanu force. laa ma ko leer na. dëgg la waaw xam nga maa ngi koy gis nag muy gën di salde sam victoire. <laughs> waaw naan boobi dafa teg sikkim. fa laa tegee sikkim. <laughs> nee saako yi laa teg sikkim. na rafetal rek. mais daa mel bee ko jàpp nag. waaw koŋ bee ko met li ma ko koŋ boppul leel bi. xam nga looloo ko met mais <laughs> na xam nga. na xooli war na dem jëli yemb. waaw wala mu def jël yaaw jaar man moom moromam Malick Ndiaye lamañ bee rëy. jërëjëf Bou Siteu li mu wax ci lamb ji yëpp. jërëjëf ah, di la sant bu baax. jërëjëf su ma waay nga jërëjëf jërëjëf kontaan nañ bu lool kontaan nañ bu baax a baax gis ngeen li nga xam ne kàddu yi wax ak euh, jafe-jafe ko ci combat bi toujours dinaa leen nag war ngeen ko bàyyi xel ci lamb la bokk ah, ñi mu laaj lamb dox na seen diggante ak ñoom war nañ ko mën a jël bëre ak moom parce que ndaanaan la xale la boo xamante ne nii dinaa la mbër yi fay millions duñ ko mi ñuy ko gën a feesal turbine te yoon la promoteur yi fekk kase yi normal kase bu riche boo xamante ne parce que day mobiliser. day sonn ci làmb day ñàkk ci làmb day sonn yi ma bëre yëpp. rek ma génne ko combat yi ma bëre sama neuf combat yëpp. ñii bëre gannaaw combat bi yëpp chaque jour maa ngi ëppale mbooloo. waaw kon loolu rek maanaam ñu war nañ ma tëggal gannaaw combat. waaw oui. waaw koo xam te yow combat yi nga ko tëggal yëpp moom mooy ëppale sax gannaaw combat bi. li ñu mobiliser mhm. kon maanaam war ñi waruñu xool taay bi quoi dëgg la ah te bëgg naa yokk doole bu baax a baax gars yi jàpp mm-hmm. keroog yaag mar li nga def tribune bi keroog yéeme na ndeysaan mar waaw keroog moom wax dëgg yàlla dama daan rek dem jaar si yàllam waaw loolu moo ne wan géejawaay dañu war a booloo dina bokk ndey dina ah, bokk bàyyi waaw waruñu xool koo xam da ngay ñëw di di jéem a jaxase géejawaay dëgg la waaw waroo leen nangu loolu seetaan wala ñu lay déglu dëgg la waroo leen nangu ah, loolu maanaam ñit ñi dañ dëggu ndeysaan waaw ah, te xam ne àdduna àdduna yàggul dara yàggul jërëjëf Bou Siteu bëgg nañ lool kontaan nañ jërëgéen jëf fii si Mass Ndiaye la xewee émission lamb bi tey ànd ceeg Abou Sefa ak Bou Siteu waxtaan bi am na solo jërë ngeen jëf merci beaucoup. ba yeneen di combat ak yeneen lamb